El Hadj Ahmed Aidara Macky Sall ah. la na Idrissa la Idrissa Seck yëkkati woon day waaw doon ah. nga xam nag moom la signé day diggante ak Mauritanie ci wàllum gaz la waaw ak wàllum Petro-Tim ja nga xam nag turu Alioune Sall kon daa tax ca Petro-Tim jooje ba ne rip laa la wax moom président Macky Sall daal di ne tontu nag ndaamal Kajoor ci benn conférence de presse boo xam ne mi ko doon amal day ak président bu Libéria di Mr George George Weah waaw président Macky Sall daal la mu xamal journaliste yi lan moo tax ngeen di poser ay question yoo xam ne day ci ay mbir yoo xam ne dañ ko dee dajji ci mbir mi laa lay wax nii publiquement moom président Macky Sall yamu ca ndaxte nee xam nga mënuñu fee amal ab débat boo xam ne day du sax débat ay non sujet libération yi ne kay ne président Macky Sall day ah ma ne la tuutil na lool Idrissa Seck waaw le soleil yéene kay ne la ñu signé woon day ci wàllum gaz diggante Sénégal ak Mauritanie waaw amu ca benn lëndëm lëndëm boo xam ne kon am na jaax waaw waaw parti réew mi day dama ne nga publier wane ko accord yi nga xam ne kon signé nañ ko te la nekk ca biir accord yooyee yow doo nga ko xam yow Macky lii ngay xam le nag loolee processus normal la aduna yëpp a ko bokk te suñu constitution bi tamit day loolee la santaane loolu kay amatul kumpa Idrissa Seck ci tribune yéene kaay ne président maa ngi lay fàttali nga bañ a fàtte daal Petro-Tim ji bu ko fàtte bu ko fàtte trotim ji le quotidien ne en tout la ñu signé day suñ diggante ak Mauritanie waaw ma gi di kaasa ngi xeeñ seen diggante de mardi tali dirima ci termine yéene kaay ne xam nga Idrissa Seck nag maanaam ba mu laalee lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz jooje nee ma hydrocarbure ja waaw baaka la ne du ca de ba gën a yànq ci yoonu nag Macky lay Idrissa teg loxo na leer la transparence te gis nga ci réew mi di Sénégal waaw kenn ñemewul waa ne Macky Sall musiba mbaaba kuma bi nga xam ne nag maanaam moo am ca Petro-Tim jooje yëgu ko bañ a yëg ma ne kenn ñemewul waat ne Macky Sall kon musiba mbaaba kuma am ca Petro-Tim kon yëgu ko te li koy firndeel day mooy beneen dossier bi nga xam ne signé nañ ko suñ diggante Total waa France Total waaw nga xam ne Macky Sall ci boppam moo taxaw nee na lëndëm leeralul dara ca dossier Total boobee amul benn sénégalais boo xam ne rek maanaam am nga benn information la gën a ndaw nag laa la wax un yotaa ci wàllum Total jooje yéen kaay gi ne waa mais monsieur le président la république waneen lañ signé waaye de grâce ngir yàlla publier ko l'observateur ne moom président Macky Sall day ah yàq na Idrissa Seck de massacré na ko de waaw waaw parce président Macky Sall ba muy tontu Idrissa Seck dane ko xam yenn question yi boo ko laajee rek mooy mandargal ne dara lu état di doxee yow xamoo oh, oh, oh, yow liñ ne daati ci mbedd mi ba nuppi nga koy laajaat ci mbedd mi démb mbedd Medina yi day na l'observateur ne maire Medina day pare na ngir président Macky Sall de luy loolu ma ne la Bamba Fall a ma ngay gàddaay de Bamba ngay gàddaay de du samay kàddu de l'observateur ne wax Bamba Fall ne man daal sama réew bu ma soxlaa a damay wuy ji du ma sax hésité nag damay wuy ji Bamba Fall ne waaw parce que man na ganaaru kenn nenu ma nag laa la wax te parti kenn nenu ma man Bamba Fall maa ko wax maa ne Macky sama xarit la sama mag la ilaha illallah terminé yéene kaay ne Bamba Fall day waaw ma ngay ragal Macky Sall na juróom-ñaari maamam ñemewu ko maa la wax loolu de Bamba Fall ne dama ne Macky Sall sama mag la sama xarit la li may nekk socialiste yëpp Macky sama xarit la ci laas Bamba Fall ne boo leen demee nee leen président kontaan naa premier ministre bi day ak Aly Ngouille Ndiaye ak maître Oumar Youm ak membre gouvernement bi waaw ñoo jàll ci woon Bamba Fall démb de Bamba Fall ne leen boo leen demee nee leen président kontaan naa لا إله إلا الله تاي جامونو جو خامني بامبا فا لا غاي كونتانتي ماكي سال داي خليفه سال نجا بير كاسوبا يا إله الله باتلي مي جاز تي وال فجري خليفه سال داي اي فون بوليتيك اي جير لولو كيل مانو كودي ندي لا واخ باسكو ماكي سال خامنا كو مو كنور اك مصطفى نيا سا نينن اك نينن صاح مان نك جيس بي دي مالك لامون مان باتلي مي واو موي لامون خامني الا كو ريو ابا نيرو ريو ميغي تي اي لوخوم موم اركات بي لاس اي كيست افاس داي واو وا نغور دي داي جروم بن مليار يوتوف دول كون جروم نيتي six la ñuy laaj Khalifa Sall le témoin de l'état day ak avocat yi waaw ñi ngi def seen kéem talaay kattan day ngir wane ne Khalifa Sall mi daa tax ne ruba Barthélémy Dias ci Walf ne taxul dara njiitu réew mi daal soxor i la ji maanaam la jëmbat mais loolu dong lay góob nit ki moom loo jëmbat ngay góob méchanceté la jëmbat moom Macky moom lay góob Barthélémy Dias de tey nag ma wax leen info de est-ce ngeen ne Ousmane mi ngi Diop doon dimbali Youssou Ndour Mbaye Ndiaye ak Abdou Mbow mi lee maître Samba Bitèye ci le quotidien yéen kaay avocat nguur gi la waaw ne lan mooy ndeyu ñu jël suñu xaalis bi di ko jox ay nit ñuy dem ca Bercy di caaxaan loolee du mbaax mais yàq la mbon la ca jamono jooje yéen a kaay nee na plateforme des forces de l' émergence ah Cheikh Kanté ak ña ma àndal day la ñu bëgg daal mooy falaat président Macky ci premier tour ci 2019 dem ca lamb ja tribune sox ne lamb Ama ak Papa Sow day amatul annulé nañu ko ah, ah. laaj la ca samp de mbëri seen reliquat ba léegi ni la day ñu ko téye xeer xalaatul sax te lay di filmer te duñu fay le quotidien yéen a kaay ne direction UDN day waaw awawaat ah daal dinay xam le ne comme que def na ñaari mandat pare na ca laas eh, alternance ah, mi am ñaari mandat di dem waaw jàngal na moo di giro mi ñoom ma dem ba sok ak ñeneen ak ñeneen <laughs> alaaji waxu démb jee dellu si tey rek gor gu nekk daal war ngaa daw ñu wiccax sa loxo awa wadd nag nii rek la mën a doxalee ndax deret dafa fort te waa école 17 xam nañ li may wax boo paree ma ne la alaaji tëjal su ngeen bëggee teewluwaat li teewluwaat